yoonu mucc gi yàlla tëral saa yu ngeen déggee joololi bi taxaw leen xalaat te jéem tontu ci laaj bi gannaaw loolu mën ngeen wéy ci seen déglu ñaareelu njàngale mi yàlla sàkk na malaaka yi nanu bamtu melokaani yàlla yi ndax mën ngeen lim juróom ñaari melokaani yàlla yàlla kenn la amul moroom yàlla dafa jub yàlla mooy boroom doole yàlla xam ne lépp gépp mbaax mu ngi jóge ci yàlla yàlla bëggul bàkkaar yàlla lu mu dige def ko ndax mën ngeen leeral melokaanu yàlla bu ci nekk benn yàlla kenn la amul moroom ñaar yàlla dafa jub yàlla dafa sell te jub te amul benn bàkkaar ñett yàlla mooy boroom doole yàlla mën a def lépp lu mu bëgg a def ñeent yàlla xam na lépp xam-xam yépp ñu ngi jóge ci moom xam na bépp xalaat bépp kàddu ak bépp jëfu nit juróom gépp mbaax mu ngi jóge ci yàlla lépp lu baax ci moom la jóge mbëggeel njéggal yërmande mbaax aajo juróom benn yàlla bëggul bàkkaar yàlla amul bàkkaar yàlla dina àtte képp ku bàkkaar yàlla dina daan képp ku bàkkaar juróom ñaar yàlla lu mu dige def ko yàlla dina def lépp li mu dige lu mu yàgg-yàgg mbind mu sell mi nee na ci saboor saar téeméer ak ñett aaya fukk juróom-ñeent ba aaya ñaar fukk benn yàlla yëkkati na nguuram ci asamaan mu ngi nguuru ci kaw lépp sant leen yàlla yéen malaaka yi yéen ñiy def lépp lu mu wax ak seen kàttan gépp fa mu ko waxe te di ko déggal sant leen yàlla yéen ay jaamam ñiy def lépp li ko soob mbind mu sell mi nee na ci saboor saar ñaar fukk ak ñeent aaya ñett ak ñeent kan lañuy bàyyi mu yéeg kaw tundug yàlla gi te taxaw ci këram gu sell gi ñooy ñi seeni loxo set te seen xol sell ñi dul fen te séddowuñu lu dul dëgg mbind mu sell mi nee na ci peeñu saar fukk ñaar aaya juróom ñaar ba aaya juróom ñeent noonu xare am ca asamaan ya mikayel ak malaaka ya ànd ak moom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 buleen fàtte seetlu melokaani yàlla yi ci nettali bi yàlla sàkk na malaaka yi nettali bi mu ngi aju ci la xawoon ci ndorte la laata dara di am muy garab tund mala mbaa nit nettali bi mu ngi ci mbind mu sell mi ci ndorte la yàlla dafa sàkk asamaan si ak suuf si laata loolu yàlla rekk a nekkoon ñu ngi jàng ci mbind mu sell mi ne yàlla xel la yàlla amul ndorte te amul mujj yàlla borom doole la te mën na sàkk lépp lu mu bëgg yàlla sakk asamaan def ko bërëbam bu sell bi muy nekk mbind mu sell mi nee na yàllaa ngi dogale lépp fa mu toog ca kaw asamaan asamaan bërëb bu sell la bàkkaar amu fa asamaan dafa fees ak ndamu yàlla ak njubteem yàlla sakk ay malaaka ngir ñu jaamu ko sàkk na ay junni junni malaaka malaaka yi itam xel lañu def na leen ñu baax te amuñu bàkkaar malaaka yi am nañu doole ju leen yàlla may ngir ñu liggéeyal ko dañuy jaamu yàlla te ay dagam lañu kenn ci malaaka yi yàlla sàkkoon moo ci ëppoon xel te moo ci gënoon a taaru iblis la tuddoon yàlla def iblis muy njiitu malaaka yi gannaaw loolu iblis tàmbale yëg boppam di jéem a tolloog yàlla yeneen malaaka yu bari itam topp iblis waaye yàlla xamoon na li iblis ak yeneen malaaka yi doon xalaat waaye liñ tëraloon amul ndaxte yàlla xam ne lépp te mu ëpp doole iblis mi mu sàkk yàlla dafa sel te asamaan mooy bërëb bu sel bi mu nekk yàlla ku jub la kon mënul dëkk ak ñu jubul ñi seen xol sel te jub rek ñooy yéeg fa asamaan bañ a topp yàlla bàkkaar la yàlla génne malaaka yu bon yi ci nguuram ci asamaan ndax seeni bàkkaar yàlla wàccee leen ci kaw suuf yàlla soppi tur iblis tuddee ko seytaane seytaane mu ngi tekki workat seytaane ak malaaka yu bon yi doon ay noonu yàlla ñuy yàq lépp lu yàlla tëral saa yu ñu ko mënee malaaka yooyu topp seytaane ñooy jinne yi walla rab yu bon yi ñu ngi topp seytaane tey xeex yàlla miy dëgg gi mbind mu sell mi nee na seytaane day feeñu nit ñi ni am malaaka leer ngir nax leen dinañ ko woy it bàyyi pen seytaane bëggul ñu déglu kàddu yàlla seytaane ki gaayam am nañu doole fii ci kaw suuf waaye yàlla ak i malaakaam ñoo leen ëpp doole yàlla wax na ne benn bés dina daan malaaka yu bon yi ndax seeni bàkkaar dinañu dem safara ak ñépp ñi leen topp fii la nettali bi yem am na ay laaj benn fan la yàlla wuuteeg nit yàlla xel la yàlla amul ndorte kenn sàkkul yàlla ndaxte moo jiitu lépp te yàlla du dee ñaar ndax ci njëlbéen ga yàlla dafa sàkkoon ay malaaka yu baax ak yu bon déedéet dafa leen sàkk ñoom ñépp ñu baax ñett lu tax yàlla sàkk malaaka yi ngir ñu doon ay dagam ñeent kan mooy iblis iblis menn malaaka mu taaru la woon te amoon xel lool yàlla def ko njiitu malaaka yi juróom lan la iblis jéem a def iblis dafa yëgoon boppam te bëggoon na mel ni yàlla ba noppi wuutu ko juróom benn ndax iblis def na bàkkaar waaw bàkkaar mooy bañ def li yàlla bëgg bañ a déggal yàlla wala ñàkk xam li yàlla santaane bàkkaar la juróom ñaar lu tax yàlla génne iblis ak malaaka yu bon yi nguuram ci asamaan yàlla génne na leen nguuram ndax seeni bàkkaar yàlla dafa sel kon mënul nekk ak bàkkaar juróom-ñett naka lañuy ñuy woowe iblis léegi tur woowu lan la tekki seytaane te mu ngi tekki warkat juróom-ñeent seytaane rab yu bon yi ak jinné yi lan lañuy def léegi dañuy xeex li yàlla tëral fukk lii lan la ñuy wax ci mbirum seytaane rab yu bon yi ak jinne yi dañu bañ doomi aadama te bëgg nañu leen sànk fukk ak benn naka la defee loolu ñu ngi nax nit ñi ngir ñu bañ a déggal yàlla fukk ak ñaar lan mooy atteb seytaane ak ay àndandoom safara yan melukaani yàlla lañu gis fii te naka lañu wone melukaani yàlla yi ci nettali bi yàlla mooy boroom doole yàlla moo sàkk malaaka yi yàlla mu ëpp doole malaaka yu bon yi ak seytaane ndaxte daan na leen yàlla dafa jub yàlla defoon na malaaka yi ñu baax te amuñu woon bàkkaar yàlla xam na lépp yàlla xamoon na li nekkoon ci xelum iblis yàlla xamoon na li nekkoon ci xeli malaaka yi yàlla bëggul bàkkaar yàlla daan na iblis ak malaaka yi topp iblis ndaxte dañu bàkkaar génne na leen ci nguuram ndaxte yàlla mënul nekk ak bàkkaar yàlla kenn la amul morom seytaane bëggoon na tolloog yàlla waaye loolu moo ko sànk beneen yoon dinañu waxtaan ci naka la yàlla sàkke àddina